أنت الإله الذي دوني وترفع ما نفذت وبيت تعرفك ملايا لا يا مؤمن ولا لكذا ولا رادي ولا راي ما أنقي آثار كل لا درلت مزايا auzubillahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ginnaaw bu ñu sante ah, yàlla julli ci yonte bi sallallahu alayhi wa sallam fàttaliwaat sunu yaakaar ci seexuna ahmadul xadim ñoo ngi am mbégte di ànd ak yéen ci jataay bopp ñi ko amalee fii ci dëkk bii di Longhor mbay mbokk yi bu ñu tuddee longoor danañ tudd dëkkub histoire danañ tudd itam dëkk boo xamante ne bi taarix dootu ko fàtte danañ tudd itam askan wu màgg woo xamante ne bi woo yàgg ci alquran la ñoo fi nag ci barab bi nga xamante ne bi moo di barab bu mujj bi te muy armeel yi ñu bari ñoo xamante ne bi daanañ leen tudd ci réew mi eh, ñu falo ay ndombay tànk ña leen faloon ndombay tànk yi ñu ngi fii ñu mën cee tudd ko mel ne Maba Diakhou Ba man cee tudd ko mel ne Lat Dior Ngoné Latyr man cee tudd ku mel ne Demba War Sall ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ne bii ci barab bi la ñu takkee ndomb ak tànk waaye barab bi itam nekk barab boo xam ne ku tedd gi Seexuna Ahmadul Xadim ñëw na fi ay yoon barab bi itam fi la Sëriñ Tuubaa laaje woon kaamil boobu nga xamante ne bi ba mu ci jotee digg na ci lu rëy barab bi itam bokk na ci barab yi nga xamante ne bi Seexuna Ahmadul Xadim bi muy jógee Daarul Manaan ba muy wax naan ku mokkal xasid ak si ndii di ka ko jàngoon mi ngi ci barab bi ci maam yooyu la bokk ñu tew fi nag ànd ak Sëriñ euh, Sawru Mbay di sunu maam ànd ak Sëriñ Mbàkke Mbay Cumbuleen Sëriñ Musa Njaay ak Sëriñ Seex Fall lépp nag ñu ko ci ndigalul Sëriñ Seex Càlla Mbay ngir waajal rek bisu alquran ak bis boo xamante ni bii fàttaliku la ak ñaan loolu la ñuy àndi nag ak sunu maam Sawru Mbay mu leeral ñu barab bi ñu toll teew mu di armée yi Longoor Mbay ak ñi ko sanc ci ne ci biir armée li kii ñuy seetaan ñoo ngi leen di nuyu noo ngi fii ci fu ñuy wax Longoor Mbay e, nekk ci arrondissement Niakhène département Tivaouane commune bu Thilmakha Mbakol di dëkk boo xam ne nii ci dëkki Mbakol yi la bokk te ku baax nekkoon fi ñu baax nekkoon fi sax ku baax daa fi ñëw di leen seet si muy ku ñu wax sëñ Moor Soxna Fall Sylla moom mooy ki nga xam ne ni moo sanc Longoor ay doomam nag ak i sëtam ñoom ñoo tasee sëriñ bi sëñ bi daanu fi ñëw di fi jàng si fii ay di fi jël si ay téere di ko xool ndax dañoo maa ngi dañoo baaxoo woon fii ñu taxaw fi lañ daan def benn këgg goo xam ne nii téere yi fi lay nekk nga xam ne képp koo xam ne nii bëgg naa am xam-xam rek bu ñëwee dafiy xool la mu bëgg xool bu noppee bàyyiwaat ko fi dem fii sëñ bi am na fi ay yoon yoon di jóge Mbàkke Kajoor di fi ñëw di ànd ak mag ñi itam ndax ku ñuy wax sëñ Modou taar mbay te bokk ci ñi njëkk ànd ak sëñ bi ba muy nekk Mbàkke Kajoor moom moo fi nekk moo daan dox diggante sëñ bi ak askan wi bañ na ko ba sax bi sëñ bi bëggee ñu jox ko téere boobu bi mu demee ci géej gi ba ko laajee sëñ Modou Matar mbay moo ñëw fii jël si téere ba yut ko ko téere ba ca la digee lu baree bari mag ñooñu nag sëñ Modou taar mbay ay baayam ñoom ñoo fi nekkoon mooy nit ñoo xam ne ni naka jekk liñ leen xamee mooy alxuraan ak jàng ak jàngale lañ leen xamee ak ñaan itam ndax eh, bañ nañ ko ba sëñ bi mag bi daana leen wax ni leen bu ngeen dee ñaanlu na ngeen dem ci waa Longoor di ca ñaan di ca ñaanlu am na ñum ko digaleen ci ay doomam ba loolu tax na a ah, Longoor siiw nañ ci alxuraan ndax li tax ñu siiw ci alxuraan mooy suñ maam yi nga xam ni moo sanc Longoor fii muy Moor Soxna Faal Sill te baayam yabalan ko fi mu goral Longoor ba sanc ko moom moomu ab kaamil lañ ko cane woon ci Tayba bépp mo baayam moom Moor Soxna Faal Sill ci boppam ab kaamil lañ ko caane wan noonu nag mooy mooy mooy meñ moo meñ wàlloo ngoor ñii nga xam ne ñoo fi nekk baayam nag jóge Tayba Mbay dil siwaat nag fekk ko fi nekk feek moom baayam boobu nag mooy Biraama Mbay ñu ñuy gëm koo siiwee ci ma Mbay Galo boroom xam-xam lan bu mag boo xam ni sëriñ bi bi muy ñëw fii di ko nemmiku si fekk na sax ñu denc ko bu yàgg waaye sëriñ bi ci boppam dafi daa ñëw di fi di ko ñaanal di wax waxit ni képp kuñ fi rob danga texe loolu moo waraloon sax ci njëlbeen ko longoor demuñu fenn fii lañ daan rob mag ñooñu ñëpp ñu ngi fii te sëñ bi dafi daa ñëw moo fi joxe woon ndigal li itam loolu mooy longoor ah longoor nag eh, mam moo moo moor soxna Sill moom nga xam ni moo moom ñi fi nekk tey moom juróomi doom la ko yàlla joxoon yoo xam ne ni kenn ku nekk kilifa nga muy ma mbay soxna Sall mooy dib taawam teg ca Birama Anta Ja teg ca Babacar an Babacar Anta teg ca Mapaate Anta Ja ñooñu ay doomam lañ mu amaat ñeneen doom it muy mbay senebe Kumba Daaro ak Maba Kumba Daaro ñooñu ñooy ay doomam yoo xam ne nii ay doomam yu góor lañ ñooñu nag seeni sët ak seeni setaat ñoo fi nekk tey yii loolu daal mooy li nga xam ne ni nañ leen ko wax ci askanu Longoor di ñaanit lañ fi daan seenu ba tey mi ngi fi eh, ku fi ñëw fekk ko fi yàlla na ko fi yàlla sàmm ba mu jëm kanam kanam kanam. sëriñ Fallou ñëwoon nan fii ci kaggu gi ci armeel yi armeel yi nag te armeel yu am histoire te yàgg lool ndax euh, armeel yu yàgg la ndax bu seet la ndax nit fu mu dëkk rekk faw mu xool fa ginnaaw ak faatoom fan lay jëm kon mel na ni kon armeel yi ban sancee longoor rek la <laughs> la armeel yi am am te Longhor ñu ngi ko sanc 1580 kon lu yà 80 loolu la mag ñi bind waaye dañuy wax tuuti ci jëmmi armeel yi ci mazaaya yi nga xam am xam am na ko waaye tuuti it ci lii nga xam ni moom lañ jàkkaar lool muy jàkka ji jàkka ji li cosaanam xam nga mag ñi bu njëkk këggu la woon këggu mooy bibliothèque bibliothèque boo xam ni seen mbooleem euh, lu jëm ci xam-xam falan koy denc nga xam ni seen xam-xam yi yin amoon yëpp ci mboolem xeeti téere yi nga xam ni dafa raaroon ñu ko daa bind ci seen loxo ndax daara alxuraan moo fi nekkoon ju mag a mag joo xam ne bokk na ci daara yi gën a mag ci réew mi ci nekk historiens yi waxe muy daara Longoor ak Kokke ak Pire ñooñu dañ daa bind ay kaamil ak téere xam-xam yi nga xam ni amutoon ak tafsir lu mel ne tafsir Baghawi boobu nga xam ni moom la Serigne Touba doon laaj mag ñi kon këgguloon boo xam ne bibliothèque boo xam ne bibliothèque bu réeree loon boo xam ne Sénégal gépp doomi soxna yëpp daanañ fi ñëw ngir gëstu fi léegi nag euh, moo tax Serigne Touba Xaadim Rasul jamono yi nga xam ne mi ngi wër di def li ñuy wax étude mooy diraasatul bii a ndax euh, bala ngaa woote da ngay dox xam ni ama rijaal lahum majaal majaal googu mu doon deful di wër ci réew mi di xam suuf si di nit ñi di xam société bi Eh, jamono yi mu nekkee mbakke Kajoor diggante fii ak Mbàkke Kajoor 17 kilomètres la da daa dox mbakke Kajoor ñëw ba fii bu ñëwee ci ay gëstoom toog ci këggu gi ci bibliothèque bi jàng ci téere yi ba tàkkusaan jot mu dellu loolee def na ko ay ay yoon yu baree bare bale ci la wëla rek sunu maam yi du sëñ Mudu Mouhamadul Muxtaar Mbay bokk ci ñi nga xam ne ci ñi jiitu ci murit gi ci la bokk te incha allahu dinañ wax euh, ci loolu jiit gi nga xam ne bokk jiitoog ci murit gi kon mag ñi dañ ci daa denc seen i kaggu seen téere kaggu lañ ko daa wax kaggu lépp lu jëm ci xam-xamu diine waaye lépp lu jëm ci xam-xam boo xam ni nit mën na koo jariñoo euh, nii nu ko def nag moom Cheikh Mouhamadul Mourtada ndax mag ñi fépp foo xam ni sëriñ bi daan na fa dem dafa xeeñtu dañ fa daa dem sëriñ Mourtada Mourtada daa ñëw fii dafa gane moom moo wax ne foofee de nangeen ngeen ko def jàkk moo tax fi ne fii jàkk la jàkk la yoo xam ni euh, Euh, fi la sëriñ bi fi la këg gu nekkoon wala fi la sëriñ bi daa nekk looloo tax ci ndigalu se sëñ Mourtala moo tax ñu def ko jàkka muy këg goo xam ne e, këg gu mag la këg gi nag e, xañ na mën na ni tas na ndax Longhor lii mooy cosaan bi waaye fépp fu doomi Longhor rek boo demee boo demee da fekk këggu ndax boo demee këggu ci wàllu xam-xam ak ci wàllu lépp ndax boo demee Touba yaakaar naa ni e, sëriñ Xaadim Mbay lépp lu jëm ci wàllu majaalis ak xam-xam ak si Moussa Mbaye mi ci jumaa ja ak yeneen dëkk yu bare bare bari fépp doomi Longoor nekk dana xam ne ndona li mooy leen mooy loolu li Sëñ Saaliw waxoon mooy alxuraan ak xam-xam euh, kon loolu mooy cosaanu euh, kàggu gi Dakar gi bu maam Seex Anta Mbàkke mosaan jógee gaawaan fii la ko sëriñ Mor Xuja ak maam Ibra Mbay di dalal fii la daan nekk di fi def li fi def di wax ak ñoom ba keroog muy dellu gaawaan fii tool bii ngeen seen taawub sëriñ Abdou Khoule bu baax bi bu tedd bi ñu tuddee ko maam Cheikh Anta fii lay bay dugub ak nu mën a toll du jaar ci kër gi ñu yóbbu ko Daaru Salaam fii mooy Dakaarug maam Cheikh Anta sëriñ Mor Khoudia ak sëñ Ibra Mbaye fii lañ ko daan dalal muy jóge gaawaan di ñëw fii di leen fekk te sëñ Mor Khoudia ak sëñ Ibra mbay dañoo bokk ci taalibe bi sëñ Touba jëkk fab jox ko maam Cheikh Anta ñu ànd ak moom. keroog ba nga xam ne nii maam yu doon mbay jóge na fi ñu waxi ko maam Thierno Ibra Faty fekk maam Cheikh Anta Segu maam noo daf ne maanaa Ibra Mbay mu ngeen di wax mu ne ñu ne mu xanaa du Ibra Mbayum Cheikh Anta ñu ne ko ah kay mu ne balaa xam ne Cheikh Anta am na mag dinaa ko jox sëñ Touba mi taxam toppan ko di ko liggéeyal. ñoo ngi taxaw fii ci bërëb bu sell di màndarga di xeer wii ñu samp xeer wii ñu samp nag histoire la ndax ak garab moo fi nekkoon garabu xewar xewar garab la goo xam ne am ay doom yu mel ne tamaate bare woon na ci àll bi lan moo tax muy histoire ndax ki fi daa wéeru di jàng mooy histoire mooy kan Maba Jaxu Ba almaami di rib ma almujahidul akbar ki nga xam ni mooy doon jihaad woowoon sëriñ sépp ba yóbbu leen ñoora di rib ba poroxaan sax foofu la sosoo woo sëriñ diine yëpp ñu ànd nekk benn barok am eh, sos lu ñuy wax mamlaka islamiya royaume islamique Maba Jaxu Ba fii la doon jànge ci Longoor ci sëriñ bu ñuy wax Mor Soxna Fall Sylla moo ki nga xam ni moom lañ cee ne kaamil alquran boobu ca Tayba bépp euh, bi mu ñëwee di jàng jàng na fi alquran ba mokkal dellu bi mu delluwaatee ba xaw a dëgër gis diina ji ni mu mel ak not gi ni not tubaab yi not gi ni not euh, jullit ñi mu dellusiwaat waajalaat boppam ci wàllu ñaan ndax dëkk bi day dëkk nungu ñaan boo xam ne suñu borom defal na leen ko ci la dellusiwaat euh, mag ñi ñëw jox ko turu ismila lazam ne ko alaamatul ijaaba bi li nga xam ne mooy tegtal ne suñu borom nangu na am nga ijaaba ci tur wi ca boo xasee ba am ijaaba ci tur wi li nga bëgg lépp danga ko am foo xeexee danga nga gañe Sénégal gi nga bëgg yilif yëpp da nga ko yilif te ko woo dana la wuyu bi mu ñëwee maa ngi jox ko tur yàlla na ko am na di wane mandargab ijaaba bi am na benn dëkk bu nekk fii ci suñu wet amoon na doj wu mag a mag woo xam ne wax na ni fukki ponkal bu ñu ko doon yëkkati du tax ñu yëkkati ko ndax diisaay ba ñu ne mag ñi ne ko soo sooy wirdu tur yàlla bi booy yëkkati ko fu mu la toll rek xamal ne ak fal la muy wirdu di wird di wird bu ñëwee léeg mu yëkkati mu toll ci wóom yi di wird di wird léeg-léeg mu yëkkati mu toll ci ndigg li di wird ba yu yëkkati ko mu toll ci mbagg yi bi mu ci mbagg yi yëkkati ko ba ca kaw dana li ci des aw fit moo koy àggale maa ngi dan ne bu ko yëkkati woon ba ba mu tiim mbopp bi senegal gépp la yilif te defet du ko am ndax mag ngi ñoom suñu borom yàlla defal leen ijaaba ma ba jox ba moom nag euh, ci fii ak xewar la woon ci xewar gi bi muy jàng alxuraan fi la daa wéeru di jàng moo tax ñu ko tudd xewaru Maba ndax xam ngeen ne Longhor daa bokk ci daara yi nga xam ni ñetti daara yi nga xam ne ci réew mi ci Sénégal ñoo fi ëpp ba der historien bi wax na ko muy daara Kokki ak Pire ak Longhor ñu bare bare jaar nañ fi jàng fi alxuraan ñenn ñi sax da daa jàng alxuraan ba noppi jaar fi ngir barke bi ndax barke bi alxuraan suñu borom da leen ko defaloon te Serigne Touba wax na loolu léegi Maba Jaxu moomu nag xewar gi mu daa wéeru mi ngi nekkoon ci ndaye daara mi ngi nekkoon kum Kumba Daaru Sill Kumba Daaru Sill mooy jigéenub libaas libaas mi nga xam ni mooy maamu Serigne saaliwu ñoom ak Cheikh Abdoul Ahad ak Serigne Chouaïbou ak soxna Momi ñoom euh, ñoom ñëpp ak sëñ Abbas Boussa di koo xam ni ku kii ku saf ci yoon murid la kookee di seen maam di libaas euh, jigéenam danga nga xamee ni mooy Kumba Daaru Sill ñu bokk lépp euh, fii moo nekkoon moo nekk Kumba Daaru mooma daa nekkoon soxna ci sëñ Longoor moo taxoon way juram di du jenn fekk si woon nga xam ne ci armée lii ci lañ ko denc kon loolu mooy histoire xeer wi loolu mooy ma ba Jaxu bi nga xam ni jaar na fi jàng fi alxuraan ba waa waajale fi jihaar ju mag ji nga xam ni moom la doon woo sëriñ sépp seen ji woon ko ñoora ba sëriñ tubaa nga xam ne way juram so euh, Mamour Anta wuy ji woon ko ak ñu baree baree baree bari fii leen ko waajale ci long انظر جنادي وعلي يجب أمر بما تب وآهل بدا تقوايا يا رب الأدب يا كل دنيا يا رب الأدب يا رب الأدب